asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. di leen ziyaara ci bés bu màgg bi di ñaan yàlla nangul ñu te nangul bépp jullit. fii Sénégal toll nag comme ni ngeen ko gisee. mu mel ni musiba mu doon raam di ñëw ñu naan dana yegseeg du yegsi. dana rëy dana tuuti ba mi ngi nii taxaw ak ni mu tollu réew mi di tàkk ci ay barab yu bari safara di tàkk ci dëkk yu baree baree baree bari ay alal di yàqu ay nit di gàllankooru di loru ba ay bakkan di rot ay nit di faatu lu mu néew néew ci xabaar yi mujj jot juróomi doomu aadama faatu nañ ci coowloo yi lii mooy fitna jullit bi nag lay taxawaayam ci fitna moo doon wattandiku ko lépp luy indi fitna lu koy yee luy tasaare fitna lu koy yaatal jullit da ko war a wattandiku kem kàttanam ba fitna tàkkee ba noppi it jullit bi daa war a taxaw ci saafara ko yamale ko nam gën a gaawee balaa muy gën a jéggi dayo rawat na fitna jii nga xam ne ak li muy rëy rëy li koy saafara lu jege la lu jàppandi la yàlla dénk ko njiitu réew mi Macky Sall moo tax Macky Sall ak ay jëwriñam ak ay ndawam ak ñamuy diisool waay waay nañu delloo ci seen xel te xam ne àdduna loo fi am lu dul jàmm ak lu mën doon danga ko teg wuti jàmm loolu ñëpp xam nañ ko bëri na yu yitteeloon lool ci fan yi nit ñi di ko bàyyi xel waaye tey yëpp teg nañ ko fële ñëpp a ci coowaloo yeeg taal safara yi tàkk bakkan yi faatu muy bunta fitna boo xam ne buñ ko seetaanee kenn xamul fu muy yemi balaa loolu yëpp di am nag donte li amagum jéggi na dayoo ba pare njiitu réew mi yéen ñii wax ak njiitu réew mi mu di leen déglu wax leen ko dëgg te yàlla tax jëwriñ yii nekkal njiitu réew mi ci mbir yiñ ko nekkal rawat na lépp lu laal ci mbir yi ak noo ci laalee na leen wóor ne buur buur bi yées ci buur yi gën cee sori yërmande yàlla mooy buur bi tooñ arab yi dañuy wax ne al mulku yaduumu ala al kufr wala ab yéeféer ku gëmul yàlla ku gëmul yonantu ku gëmul dara man naa yor nguur nguur ga di dox waaye yor nguur di tooñ loolu boo ko defee yàlla daf lay jéppi merum yàlla day dal ci kaw te yàgg yàgg fayantoog yàlla xaqi jaamam yi lépp dana këppwaat ci sa kaw ba nga xam ne yàlla kenn la kon njiit réew mi Macky Sall na delloo si xelam delloo si leen seen xel ngeen dellu gannaaw ci mbir mii nga xam ne soobu ngeen ci bamtaal fitna ji lii mbir tey mbir mooy da ngeen yilif askan woo xam ne fer nañ nax weesu nañ fu ñu leen di naxee Sénégal tey ak ku leen mën a yilif nax leen def la ngay def dem yooyu weesu nañ ko xewi na xanaa da ngay gëmmu sa ñaari bët sakk say nopp fetteerlu ne maa tey def li la neex loolu rekk fi def te maa tey jooju boo bu dee yàgg nga koo def muy jàll tay nag askan wi taxaw nañ la du fi ame mu jaral leen ay nit di faatu jaral leen alal yu bari di yàqu ci réew mu mel ni senegal réew mi nga xam ne dañoo ndóol dañoo néew doole réew mi nga xam ne ñi fi ëpp ay fuqaraaw lañ ay masaakin lañ bu ñu toogee ay fan yuñ liggéeyul am jafe-jafe réew mi nga xam ne bëri na kenn xamul nuñ toll ay boroom kër yoo xam ne bés ñu xëyul am nañ jafe-jafe dund ñoom ak seenu njaboot lii xew ci réew mi di xew tey ñu ci capital bi ak ci capital région yu bari buñ bëggee xëy sañuñu ko ñi mu wuñoo xëy ndax ku génn fitna ju ne mën naa dal ci sa kaw dem ak dikk yi di gàllankooru ba njàng mi di gàllankooru tey amul benn dëkku bu mag rawat na capital bi Dakar kuy bàyyi doomam muy dem école di jàngi te yéen ñëpp xam ngeen liñ jóge at mii passé ni njàng mi demee Sénégal war a jàng fukk wala juróom-ñeenti weer daaw feebar bi xew tax liñ jàng weesuwul ñetti weer te njàngam Sénégal weer wu njëkkoo moom man ngaa wax ne lépp ay wàccaay la jàng amul daaw liñ jàng dëgg dëgg matul ñaari weer yu mat ànd ak élèves yi ca classe yi nekkoon jàll nañ ca classe ba ca topp pexeeg tappale yiñ def ba jàllale élèves yi doon def examen loolu dafa war a ànd góor góorlu ren xëy bu rafetul ngoontu daa war a rafet am xëy bu rafetul ku war a xëy huit sàggan ba onze nga door a xëy sa xëy baaxul waaye waaye da war a teel a gontu te guddee wàcc lala faatoon ci xëy nga nga ko ci ngoon gi moo tax atum ren mii waroon nañoo góor góorlu ba lépp luy gàllankoor njàng mi du fi jege kon créer fi fitna yu toll nii ba bëgg a tëj école yi bëgg gàllankoor njàng mi amut lu ko jar nit doo xalaat man sa kanam man sa ginnaaw président Macky Sall faw nga delloo si sa xel doomu aadama man sa kanam man sa gannaaw déedéet buñ la dénkee ab liggéey rawat na liggéey buñ la jox nga xam kañ la war a yem. ne bu la fi yàlla bàyyee sa fan lu mu gudd gudd àpp sànga moom mënu koo weesu ak lu mën a xew liggéey bi da nga ko delloo ña la ko dénkoon waaye waaye loo fi def lu dul góor góorlu paase say waxtu yépp ca la tax ñu fal la lañ lay liggéeyloo yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi tooñ saw askan kon ku fi nekk bëgg a lijjanti sa suba bëgg a lijjanti ku lay wuutoog kañ nga fiy jógee ba tàbbi ci fitna ji bakkan yii di rot mu wóor la bu dee jullit nga yàlla daa la ko laaj alal yi yàqu nit ñi loru tiitaange yi yëpp ëllëg daañ la ko xisaab ci kanam yàlla lii bind la boo xam ne mboolem ñii politique ñii bëgg a yilif ay ay ay gox rawat na ñi bëgg a yilif réew mi waaye waaye buñ la dénkee buñ la dénkee ndénkaane loo xam ne bu dee nguur la yow donnoo ko ci ndey donnoo ko ci bàyyi donnoo ko ci benn cosaan mairie bi nga yilif donnoo ko ci ndey donnoo ko ci bàyyi donnoo ko fenn yépp say nawle la ko dénk luñ la dénk mu nga xam fa mu war a yem te ñii la ko dénk wóor la ne am na bu dee xam-xam am na ñu la ko ëpp bu dee jub am na la ñu la am na ñu la gën a jub gën laa maandu gën laa man gën laa xam ànd ak loolu yépp ñu tànn la dénk la nga bëgg dugg ci yeneen ak yeneen di bëgg fitnaal ay nit bëgg gàllankoor ay nit ba lii xew di xew lii dara jaru ko lii dara da koo jaru kon njiitu réew mi na delloo si waat xelam coolee fu mu mën a toll bu ko neexoon tey tey tey delluwaat ginnaaw ci lii mu soobu bu dee ay nax lañ bëggoon askan wi wees nañ loolu maanaam Sénégal ku leen di xalaata nax yow yaa tardé yow la sam xel matul waaye nit ñi wees nañ foofu bu dee forcé nga bëgg doonte yàgg ngaa forcé mu jàll tey nee nañ la déet du fi amee mu jaral leen dee ay bakkan di rot alal yi yàqu yëpp di yàqu safar si tàkk yëpp di tàkk nga bëgg a féeteer lu continuer di diriku jëm ci kàmbug fitna goo xam ne kañ la jëm kon njiit réew mi képp ku mën a wax ak moom te kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam nit mi ci wàllu diine ñoom yi nga xam ne saa buñ soxlaa njiitu réew mi mën a wax ak moom guddi wala bëccëg sikk amul ne ñoom ñëpp wax nañoo moom ca teel wax nañoo moom lañ ko war a wax bu dee nag moom ma nga gànnaayoo ay layam ak ay waxam yoo xam ne yaakaar na ne mën na leen koo naxe wala ma nga gànnaayoo ak dëgër boppam ne moom lu matt day dagg du dellu gannaaw kenn mënu ci dara walla am na jeneen doole ju nekk ca kaw ca France yilif ko di ko defloo sañu la bañ ba faaliwul ñii koy waxaloo ñi ñii di ko digal dëgg-dëgg mi ngi tooñ boppam mi ngi tooñ boppam waaye mi ngi tooñaale sax askan wi ndax ñu bëree bari dañuy wax naan ñi war a wax ak moom ñoo waxul ak moom di wax ci loo xam ne xamuñu ca dara ñenn ñi xëy na sax xam nañ waaye loola mooy seen mbir bëgg a tooñ bëgg doyadal kilifa yi moo tax ñuy waxee noonu ñi ci des nag yeneen kilifa diini yu bari lool ci réew mi ak waxkat yi nga xam ne seen maqaama yéggul ci mën a jot njiit réew mi wax ak moom li leen war mooy yëkkati seen kàddu wax ñi ngi yëkkati seen kàddu di wax waaye bu dee moom yii xew nii imma doole ko tiin di ko defloo sañu la bañ walla dëgër bopp la goo xam ne fasul yéene dellu ginnaaw wala am xel mu rëy la yaakaar ne moom la yor ba mën naa nax nit ñi ak lu ci mën a xew rek mi ngi ci njuumte lu rëy kon ay jëwriñam ñi muy diisool ñi koy jàppale ci yii waay waay nañ fëgg boppam delloo si am xelam xamal ku ne lii du ak jub lii du lu baax lii ak tooñ la lii fitna la joo xam ne tàkk na te kenn xamul fan lay yem fitna la ju tàkk joo xam ne kenn xamul fan lay yem doomu aadama yaa ngi loru ñu bëree ngi bëgg a dem mënuñoo dem mënuñoo dikk ñii war a liggéey mënuñoo liggéey ñii war a jàngi mënuñoo jàng ñii seen alal la ngi yàqu ñi ngi lakk ay oto ñi ngi dal ci kaw lu ne di ko di ko di ko di ko di ko di ba ay nit a ngi faatu teewul mbir mi ni muy doxee mu mel ni njiit réew mi dafa fas yéene continuer ci fitna ji dafa continuer bëgg sërax bëgg a lab ci géeju fitna labaale réew mi sénégalais yi nag dañoo loru ku ne xam na ne ay at yu yàgg ngi ñi ngi jànkuwanteel jafe-jafe yu bari di muñ ay tooñ di muñ ay fitna yuy bàyyeekoo ci ñi yilif réew mi jëm si ci ñoom buñ demee ba tey nag bu dee da ngaa bëgg a nax ñu la yeewu nañ boo taxawee bëgg wax sax boo waree wax fukki baat boo waxee ñaar xam nañ fa jëm man nañ laa yeggale la ca des kon wër-wërloo bi jaru ko nga bëgg a forcer la déet jaral nañu suñuy bakkan waaye waaye dellul ginnaaw waaye boo yaakaaree ne mën ngaa taal fitna ju ñu toll xëpp ko askan wi te mucc yow yow ak sa njaboot ak lay jàppale. yaa ngi nax sa bopp ñii yàlla di liggéeyloo ci alquranul karim ñuy jàng di jàngale alquran boroom daara yi ñaata fitna lañ dund ci at yi passé mbokk yi ñaata natt moo dal ci seen kaw ñaata daara lañ fi tëj ñaata daara lañ dem dajj seeni buntu jàpp seeni dong yóbbu leen ci ay centre yoo xam dañ leen fa yàq di leen fa jàngal carte ak yoo xam ne yépp lislaam da koo bañ da koo sib yow bu dee sa nawle yi nga seqal terrain politique bi taxaw nga ci naa leen rendi kenn par kenn ba kenn dootu fi des ñi nga séqal réew mi ñuy ay kilifa yi diine nga mel ni ku yor sa mashru maasuu nii boo xam ne naa doyadal kàddug diine naa leen soofantal naa yàq seen der ba kenn dootu leen gëm kenn dootu leen doyloo dootuñ fi am benn sañ-sañ ñoom ak ñëpp yem mënuñ laa wax nga dégg buñ waxee sa kaw sax maanaam buñ waxee ci kaw ñëpp dégg nga gën leen a doy dal yaakaar naa ne Sénégal kenn fàttewul kenn fàttewul barki démboo njaay bi ñuy bëgg a jàpp Khalifa Sall am na kilifa gu mag kilifa goo xam ne li ko topp ci mbooloo di ay boroomi xam-xam di ñu ko déggal nangul ko boo doon xool kilifa biir Sénégal yi yi yi ëpp mbooloo ëpp kilifteef ci réew mi tey mënoo lim fukk mukk te boole woo ko ca taxawul fi ñaawlu loolu ba wax ne buñ bëggee jàpp Xalifa Sall sax nañ ko jàppale moom waaye kàddoom yooyu lan la saafara kàddu yooyu bal dafa mel ni daa tax gouvernement bi gën a baral seen jéego gën a gaawal la def ngir jàpp Xalifa Sall jubloo doyadal kàddu yi kilifa gi ak yeneen ak yeneen yi fi xew kilifa yu mag wax ci seen làmmiñ ne ñaan nañ ko waxtaan nañoo moom waaye dégglul leen nangulul leen ku mel nii nag njiitu réew mu mel nii gag bi kay mooy lu waral jikko ji ak doxin wu ñaawu salte wi ndax doole jële nekk France ñoo ko tiim di ko defloo sañu la bañ te loolu moom jamtalu na quatre-vingt pour cent wala ak dëgër bopp rekk la walla ak yaakaar ne yow da ngaa yeewu da ngaa muus mën ngaa nax ñépp te loolu moom mooy li gën a soof ñi nga seqal ñu bari ci ñoom ñoo la gën a xam sa bopp yow nga yaakaar ne yaa ngi leen di nax yaa ngi leen di wax loo xam ne gëm nañ ko ba ña ngi ko jàppee noona di dem rek sa bés a ngi ci kanam de sa bés ngi ci kanam moo tax fitna ji tàkk bakkani doomu aadama yi di faatu benn benn benn bakkan yilif àdduna ak li ci biiram yépp jërul benn bakkan rawat na yilif Sénégal gii nga xam ne yow sa kilifteef du loo xam ne danga ngaa xeex wala sa maama xeex wala sa baay xeexoo ba not nit ñi donnoo ko ci sa baay donnoo ko ci sa yaay mën naa am sax mosoo am maam ju masa falu bal askan wee tànn na ñu dénk la ngir nga doxalal juróomi at wala juróom benn at juróom ñaari at ñu war a tànn keneen nga bëgg taal géejug fitna sànni ci réew mi yépp lii xaw barki démb ba léegi ñetti fan mu mel ni yow da ngay gën a tox da gën a gumba da ngaa gën a nuuru ci lii ma bëgg moom naa ko def ci nii wala ca doonte nit ñi ne dañuy dee nañ dee doonte dëkk bi day tàkk na tàkk ba jeex moo tax mbir metti na lool metti na lool waaye waaye nañ nañ dollee muñ te dollee góorgóorlu waaye ànd ak di ñaan yàlla di ñaan yàlla fitna ji yàlla na ko fi yàlla yemale képp koo xam ne yéene mooy taal réew mi dugal leen ci fitna tàkk-tàkk yooyu na yem ci yow na yem ci yow